si Sadio mbooloo mu takku ñoo fa teewoon ñëwoon ngir assister meeting sargal président Macky Sall bi Sidi Ndiaye doon amal fii nag jàpp nañu ni c'est le département en miniature ñoo fa teewoon mu di maire du haut conseil képp ku yor ndombal tànk wute woo bis bu ne mel bu Taïf Mbaye ma nga fa woon du haut conseil des collectivités territoriales nekkat li mu gis ni nag lii mooy premier pas ngir nag def la reconquête du département de Mbacké. du département en deux mille Mbacké ngi fi monde bi mu ngi fi kon c'est le département en miniature qui est en charge aujourd'hui tey monsieur le ministre sous vos responsabilités fii la ñu war a commencer tey commencer la reconquête du département te war naa mën a nekk te ñun pare nañ pour topp sa ginnaaw nga jiite commando bi ñu ànd ak yow gagné ministre de la fonction publique nekkit maire bu Mbàkke ñëwoon également en tant que parrain wu bis bi moom Gallo gis na ni kat li mu waxtaan ak président Macky du leen lu dul ñu dooleel Sidi Ndiaye mii de ndax lii mu gis moom yéem na ko si mbooloo te nag jàpp na liggéeykat la buñ ko doolelee dina dem fu sore si politique rawat na si département bi. bërki démb la ma président de la République Macky Sall recevoir diggante 11h ak midi ma waxtaan moom lu jëm ci département Mbacké ma ne ko it dañoo bëgg monsieur le président de la République ñu dooleel le maire Sidi Ndiaye li may wax ni lu leer nañu lay wax bërki démb ci 11h laa toog ak président la République audience waxtaan ak moom ne ko dañoo bëgg le maire Sidi Ndiaye jàmbaar la am na taxawaay am na mbooloo amante nag waa Sadio dañoo bëgg nga jàppale ko dooleel ko ndax ku ne ci ñun xam na élection yi ñu demoon ndax lii maire bu nekk dul maire am lii ci mbooloo am lii ci ay relation boo wooyee maire yi ñëw boo wooyee ministre yi ñëw boo wooyee député yi ñëw ku mel noonu dañ ko war a jàppale taxawu ko te loolu président de la dégg dégg na ko te am naa yaakaar dina ko def. honorable Matar Diop moom it bokkoon ci parrain yi moom sax foofu foofee la profito ngir investir président Macky Sall ci kanamu mbooloo mi. dégguma dara dama bëgg ngeen wax kan mooy seen candidat ci 2024 kon jeex na bal takk na waa Sadio investir nañ seen candidat la président Macky Sall en 2024 président Macky Sall bëgg doon candidat bañ doon candidat yow yaay suñ candidat ñun département de Mbacké kon monsieur le maire yaakaar naa ne li nga wax dégg nañ ko waa Sadio li ñu wax dégg nañ ko. moom maire ba woon di Sidi Ndiaye jàpp na ni kat maire bii de bokku si Pastef yor dëkk bi dafa freiné nu dëkk bi li ko waral mooy collaboré wul te xamul yoon wi muy jaar. le maire bi fi nekk actuel du sama ennemi du seen ennemi suñu ay adversaire lañu dañoo am lu ñu gëm gëm nañu ni Ousmane Sonko la ñu yaakaar mën na defar te je pense que ni woo waar moom yem na yoon wuñ topp la ba fa mu yem mooy da ngay wàññi ko waaru Ousmane Sonko xalabu ma ndax man sama politique nag bëggu may xalab bëggu may def kenn waaye yàlla def yoon wi nga xam ne topp ko pour Ousmane Sonko mën a defar senegal gi woo yoon moom freiné na te nag kenn tegu ko ko yàlla mi nga xam ne mooy tege moo ko ko teg ak ay jëfam kon nag la may wax mooy monsieur le maire ñi nga xam ne ñi ngi biir Sadio ñi fi nekk te bëgguñu ñu développer Sadio mënuñu ko développer sans que ñu ànd ak pouvoir Sadio mënuñu ko développer ak opposition mëntu nekk. beneen doléance bu ñu yàgg di coow fii si gox bi di tali bi lëkkale Taïf ak Sadio moom jàpp na ni loolee yemb na ba noppi ndax nag président li mu def si Sadio jàpp na ni tali bi waru ko mën a nëbb ndaxte lu nu fàng la moom si ay kàddoom si di njaay. ñun waa Sadio dañoo war a taxaw di ko tàcc parce que nag damay wax ni sama papa de daana wax ne ma nit day boo soxlaa ci moom fukk mu defal la juróom da nga koy sant nag juróom taxaw juróomi ci des nga ñaan ko ca lu mu la ca mën def mu defal la ko parce que nag ndar xëyul sotti ah on a un problème enclavement la saajo am commune bu toll ni saajo amul benn yoon bu fi dugg si loolu problème la mais loolu wax nañ ko président ba mu dugg ci noppam xam na ko président bu fi mas a jaar lim ñu wax kenn mësuñu koo wax yoon bi maa ngi ci dinaa ko liggéey te loolo duma ci sori ndax kat tungu ni du teew ñuy nataal ñii duñu toog jóge ci président de la république war a nettali dañuy toog ñu déglu leen kon tey li ma leen di wax ni je bu mag mbooloo mu tàkku mboolem village ak amoo yi nekk si biir Sadio ñëpp teewoon nanu ñii nag gën a féddali seen kóllëre seen ginnaaw leader bii di Sidi Ndiaye.